Euh, prestige Plateau alors euh, monsieur Fall présentez-vous pour que Thiessois yi sénégalais yi gën la xam. Euh, jërëjëf Abdoulaye donc Mangi ngi balaa may présenté wu maa déjà nuyu waa Prestige TV Euh, di leen baalu àq ci di leen baalu àq ci weer bi ñu génn weeru koor bu tedd bi di leen baal àq bu baax baax di ñaan. vraiment seen kër yàlla def fi xéw bu baax baax. donc Mangi man maa ngi tudd Moussa Fall xam nga présenté sa bop nag moom nek ah neexul mais jéemal rek. waaw waaw mais euh, waaw maa ngi tudd Moussa Fall euh, maa ngi dëkk Thiès juddoo fi yaro fi maa ngi dëkk Grand Thiès moy sama cosaan mais actuellement maa ngi fayu waaw bo xolé ci walu métier mi aussi. institut de la formation la comme ni ko waxé maa ngi liggéey yëf bu Thiès bi mais sur un autre plan également maa ngi yëngatu ci politique bi terrain politique bi et faut aussi manger avec son ak son leader son collègue suma kóllëre yu Alassane Sall. voilà donc on voit, pas hein, euh, donc euh, dans nga ñëw fi teew mi inspecteur de l'éducation euh, mais en fait il est venu aujourd'hui me voir en tant que politique mais xam naa du ñàkk sax ñu l'éducation mais pour le moment Moussa nga wax ñu parce que le mouvement bi depuis que Thierno Alassane gagne ci gouvernement bi. Mm-hmm. dafa créé benn benn benn mouvement loolu sénégalais yi xam nañ ko. Mm-hmm. tuddee ko la république des valeurs. man li ma li ma bëgg a xam mooy pourquoi ce nom là la république des valeurs. Euh, merci Abdoulaye question boobu dinañ ci sawar tuuti nag parce que euh, defe naa ne ñun ñëpp ñu ngi suivre actualité depuis presque 2000 ba léegi boo xoolee tey euh, ñi fi jaar ñëpp sur le plan politique reproche bi gën a ngàll bu leen Sénégalais yi def mooy reproche bi jëm seen jikko te ñun nag euh, vraiment dañu dañ jàpp ne développement mën na am mais dañ koy basé ci ay bal dañ koy basé ci ay jikko yu baax loolu moo tax ñu ni ñu def choix boobu c'est un peu difficile nag parce que boo koy def dafay mel da ngay tàgg sa bopp ñeneen ñi voilà gis nañu demee mais du loolu Sénégalais yi bari nañ ñu am bal dañu gëm ne am na ba léegi moo tax ñu ne nañ tracé boobu waa du ñàkk ñu ci fekk dina metti mais incha allah mën naa ñu atteindre suñu objectif. Est-ce que cela veut dire que en fait. Euh, promouvoir les jikko yu rafet comme ko di mm. nekkin façon bu ñu war a nekkee wala façon bu ñu war comportement ñu wara am mm. parce que ya ngi république de valeur est-ce que loolu taxul peut-être ce leader mm. euh genn ci ci gouvernement bi ci am oui bokk na ci bokk na ci valeur bokk na ci valeur bokk na ci parce que valeur aussi bëgg ce réew ci la bokk mm-hmm. am nga nit su dee dafa bëgg dëkkam lolu loolu xutbul watani euh, nan lañ ko tuddee sax du ma dugg ci arabe parce que xëy na ku maîtrise mais am na nu ko arabe yi waxee ne bëgg ce réew ci jàmm yàlla

que xam nga parti moom parti politique dafa laaj logistique dafa laaj moyen dafa laaj yooyu mais nag li ëpp solo ñun jàpp nañ ne am nañ ko mooy ngëm-ngëm am nañ conviction ci li ñuy def gëm nañ ni ñu ngi ci yoon bu baax mhm. bi ñu lancé suñu mouvement depuis octobre dernier octobre 2007 amaguñu at commencé nañ di def li ñuy wax euh, implantation au niveau local comme au niveau national et international mhm. au niveau local si vous voulez, nañ ci allez bismillah on est là pour ça donc au niveau local Thiès particulièrement mhm. euh, bi ñu juddoo la ñu daje qu'il y a une structure la ñuy teg sur pied mhm. ñu dañuy autour de chaque centre de vote mhm. ñu créé fa lu ñuy un pôle xool au niveau de chaque commune def fa une coordination et au niveau ville de Thiès ñu tek fa maintenant un comité de pilotage qui va bo xamni mom moy saytu liguéyu coordination ak liguéyu mais ça c'est provisoire. Hein. du lo xam dafa jógee au niveau national mais ñun ñoo xalat à Thiès pour mëna implanter au bu baax. et depuis il y a des responsables comme mel ni man ak yeneen ak ngi sur le terrain di monter poli, yi di monter coordination yi di monter également di di liggéey ci comité de pilotage. Mhm. ñu ngi def ay visites de proximité il y a les jeunes il y a les groupements féminins au niveau des enseignants par exemple comme nañ ci structure mhm. donc en fait on est en train vraiment de bouger dans tous les sens. pour dire sans participer parti au niveau de de mhm. maintenant en dehors de Thiès euh, notre président Thierno Al-Sansal, que je salue au passage. a fait à peu près sept régions ou plus def nañ une tournée à Dakar en permanence on est là-bas. Euh, def nañ benn tournée à Mbour def nañ benn tournée à Saint-Louis récemment ñi ngi woon Tambacounda Ziguinchor Kolda donc voilà ñi ngi ci réew mi daal. Euh, yéen ngi daal jéem a en tout cas euh, tasaare les valeurs de la j'allais dire les valeurs de la république des valeurs. c'est ça voilà donc c'est ah, ah, très bien mais ñu gis ni quand même que comme waxuma ko sànq nga ne loolu loolu du yomb. Mm-hmm. mais bu ñu jëlee Thiès bi nga xam ne fi dëkk ñëpp. que nous connaissons mieux. Mm-hmm. ñu gis langue politique à Thiès dafa jafe. Mm-hmm. difficile la parce que. Il y a des partis qui sont là, implantés depuis très longtemps. Mm-hmm. Il y a des leaders qui mm-hmm. sont là, euh, il y a même des liens affectifs dans la population, il y a Greenfield, etc. Mm-hmm. Il y a l'appel qui est là aussi, même si c'est n'est pas le mais c'est le parti au pouvoir, donc Amna et Racine Degui. Mais euh, il y a quand contexte. Bon. ah y a quand lool pour que nous euh, menions, en fait une ñu ko tubaab di waxee daal di rivaliser ah, que euh, mais xam nga ñun dañoo am avantage mhm. parce que nous avons bi moi je signale que man euh, vraiment les premiers membres de l'appel. donc di parce que déjà même au sein de l'appel, ba ñuy nekk APR di politique dafa presque même vision clash aussi déjà avant même loolu commencé woon nañ di position parce qu'on se retrouve plus au

bi ñuy demee tey ba man jàpp naa ni. élection mais boobu génn woon APR. non boobu ñu ngi woon APR. c'est ça APR bi ñu koy génn juste à la veille de législative la ñu te on a wane nañu suñu bopp. parce que Thiès commune man jàpp naa ni victoire bi fii bi fii bi fii euh, coalition Manko Taxawu Sénégal am ñun am nañ ci une grande part. donc man jàpp naa ni euh, biir moom. c'est vrai mais fi ñu toll nii ñu ngi koy séddoo ñoom daal bari na ñoo xam ne xëccoo bi bari na. Mm-hmm. lu tax Thiessois yi lan nga yaakaar ne dañoo foofu la ñu war a wékku pour tànn sa leader mm-hmm. bàyyi nañu lan la mooy sa particulier yi ñëw ci moom bàyyi na ci des.

doxalin bi ñuy woote lañ jàpp ni xëy na Thiessois yi surtout Thiessois yi parce que Thiessois du n'importe qui ñëpp lu ci kaj ma leen di kaj borom xel lañ borom xalaat lañ xam nañ ne am nañ doomu Thiès boo xam ne tey buñ ko toppee fa mu leen di yóbbu mooy fii développé seen donc dañ jàpp ne suñuy conviction moom mooy def euh, moom mooy finalement mooy indi nit ñi daal mais du leneen parce que fu ñu dem dañ leen di wax ni lii lañ bëgg ci réew mi lii lañ soxla pour Thiès di lañ soxla pour Sénégal. maintenant loolu nag boo ko gëmee nga ànd ak boo ko gëmul ñu bàyyi la fi nga nekk. bàyyi fi nga nekk très bien donc loolu daf ñuy indi rapidement ñu ñu dugg que gis nañu que bientôt euh, ñu ngi dem ci élection présidentielle yi parti boo dem euh, wala mouvement boo dem les gens ñu ngi commencé wax dëgg yàlla euh, positionné wu par rapport à cette présidentielle là mouvement de la république mm. république excuse-moi des valeurs bu Thierno Alassane candidat là Voilà du candidat. pour président pour élection présidentielle bien sûr. Oui, man dama japonais, Euh, c'est vrai journaliste il faut mais ça va de soi. Mhm. pour moi, nous avons créé créer un mouvement am lu am ambition nationale ambition pour le Sénégal. Mhm. di bañ a euh, pour pour réew donc man dama japp ne jusqu'à la preuve du contraire danañ dem leen daal la japp ne xëy na mën nañu ci fa bloqué moy mhm. xamna naa dinañ ci ñëw léegi ah, moy parrainage mais candidat la candidat nga waaw très bien donc ci loolu laa ñu dama donc damay enchaîner question boobu mhm. candidat la mhm. candidat parti bu bees waaw te gis nañu par euh, les parrainage bi euh, xëy na bu amé ni mi gal encore moy parti nga xam ne ñoo ñooy doog a te yéen ci ngeen bok kon je suppose que ne xëy d'accord leen ci parrainage bi voilà

ñu koy wala même bu koy dindi dafa laaj un préalable. mooy waxtaan dafa laaj waxtaan. te ci waxtaan boobu sax dañu gis ni que jamono yi ñu ñu weesu. Mhm. président de la république. dëgg yàlla génn na. Mhm. woo acteurs politiques yëpp. Mhm. woo citoyens yëpp. par rapport à une concertation. sur le pétrole et le gaz. may fàttali nii que. sa leader bi mi génn ci gouvernement bi. daanaka loolu moo ko boloon ak président Macky. kon tey bu président dellu soité mm-hmm. di woote waat concentration. Mm-hmm. ci kaw ci pétrole bi ak gaz bi mm-hmm. est-ce que loolu joxul raison Sénégal si jox na ko raison parce que en fait pétrole bi xam nañ ni xam nañ ni problème la maintenant waaw biñ koy wax ñun gëmuñu woon xëy na peut-être ñu bëri am na ñu ñu gëmoon nag mais am na ñoo xam ne dañ jàppoon nañu dañuy dañu xaw a dañu xaw a gis seen bopp comme ni ñuy wax dañu gis seen bopp dañu dañoo foog ni ñoo gën a et cetera non c'est un problème c'est un véritable problème on vient de s'en rendre compte donc euh, oui on a eu raison. waaw mhm. ah, am nañ dëgg daal. Mhm. tey yi wane nañ am nañ dëgg waaw. d' accord am ngeen dëgg. Mhm. génn ngeen ci euh, APR. tey jii wax nga ko sànq. bu fekkee ci sa xalaat da nga yaakaar nga ne ngeen nekk candidat. pour les élections présidentielles. bu ngeen nekkee candidat. pour nga pour il faut que ngeen campagne. campagne boobu seen programme xëy na programme c'est très tôt dans dire. mais xëy na mun nga dégager quelques axes. programme bi nga xam ne moom ngeen fas yéene. Euh, présenter ko Sénégalais. ok merci beaucoup waaw loolu loolu feeñ déjà si lancement mouvement Laye Publique de Ndar président Thierno Alassane Sall bi muy lan bi ñuy lancé mouvement dafa am benn discours bu mu bu mu bu mu fa livré woon. Mhm. dans ce discours là dafa amoon cinq axes yu mu tracé woon ni axes yooyu moom mooy yoon yooyu. Mhm. buñ ko toppee mhm. war nañ ci mën a tëgg benn programme boo xam ne dina jëmale Sénégal tam dina tax suñu réew mi euh, avancé maanaam développé. axe bu njëkk bi mooy dafa bëggoon xeex.

européens yi ñu ngi koy def ku nekk ñun nag croissance bi ñuy wax ne mi ngi ci à sept voire mi ngi ñu ngi ñu ngi aspiré aller à deux pour cent à deux chiffres mhm. croissance boobu ñuy wax du ñu bénéficié wu ñun sénégalais yi mais bitim réew la jëm. loolu il faut ñu xeex loolu ba nga xam ne alalu Sénégal day dellu si alalu Sénégal kooku mooy accès bu njëkk bi. c'est ça beneen bi mooy ñu bàyyi gouvernance à court terme maanaam gouverner c'est prévoir. Mhm et deuxième axe de mon kon lépp lu ñuy defati dañ koy planifier planification de combattre ci loo gis problème n'est que rek nga ko indi solution avant ngay entamer action mm-hmm. da ngay planifier d'abord. ko mm-hmm. planifier ba pare nag mm-hmm. mën nga au fur et à mesure mais jàpp nañ ne daal waratuñ di euh, nguur waratul jël ay décisions yoo xam ne xalaat gouvernance donc à pilotage à vue dañ troisième axe bi moom renouer avec les valeurs morales maanaam ñu dellu si waat nag ci jikko yu baax yi ñun dañoo am ay guide ay tegtaluwaay ci côté diine boo jëlee maam Cheikh Ahmadou Bamba jël El Hadj maam El Hadj Malick Sy jël maam Bunta Bu Kunta Jaasaan jël maam Limaamu ñooñu doy nañ ak ñeneen ñi ak Baye Niass maam Baye Niass ñooñu ay référence lañ nga ñëw sur le plan politique mm-hmm. mais Senghor référence la Mamadou Dia référence la. Cheikh Anta Diop référence la. nga dellu si le plan euh, sur le plan purement euh, purement professionnel. Mhm. ku mel ni ku mel ni ku mel ni référence la. Mhm. ku mel ni ku mel ni ku mel ni euh, Iba Der Thiam. Mhm. en histoire référence la ñoom Abdoulaye Backe li ñu ay référence la Amadou Mahtar boobu référence la. donc am nañ ay valeurs au niveau du Sénégal. yoo xam ni dañ ko war a dellu si waat mooy ngor. mooy ku wax doo waxeet mm-hmm. mooy sàmm sa diine mm-hmm. mooy sàmm sa ngor mooy ak yeneen ak yeneen ak yeneen yaa ma gën a xam valeur yooyu ñoo ko partagé loo c'est le peuple sénégalais qui mais mais mais ci ci ci valeur wax nga ko doo wax waxaat mais gis nañu sa leader mm-hmm. euh, démission bi ñaari yoon ndax njëkk naa démissionné ci gouvernement bi bien bi mu démissionné ci gouvernement bi génn woon affaire mais dafa dellusi waat waaw waaw léegi démissionné waat naa est-ce que sénégalais yi mën ko xaar mu dellusiwaat. mën nañu xaar mu dellusiwaat bi APR wala déet. mënut a nekk saa moom ma loolu moom jàpp naa ne moom mënatul a nekk quoi. Mhm. jàpp naa ne fi ñu toll nii jël nañu suñu yoon. Ah, dans la bonne idée waxtaan mën naa ma. Mhm. on sait jamais ah, waxtaan mën naa. waaw leneen peut-être kenn wax jamais. waaw mais delluwaat biir APR moom gëmuma. gëmuma gëmuma. ah gëmoo ne mën ngeen dellusiwaat. non non non bon très bien donc euh, ma fàttali rek euh, suñu mbokk ñi seetaan. que dit plateau précis a vraiment bêté recevoir l'inspecteur euh, Moussa Fall l'inspecteur euh, de l'éducation et de la formation euh, mais en même temps aussi que, disons responsable politique de la République des valeurs nga de de Des la ñu mais. Nous savons nous que aussi dans le syndicalisme, ou encore dans affilié euh, au syndicat des inspecteurs de l'éducation. Parce que nous avons fait ça, on donné là l'éducation. De façon générale, quelle est la situation des inspecteurs de l'éducation Wow, je sais que cette émission est tombée juste dans un, en mouvement. Ok. Euh, en mouvement depuis presque deux mois maintenant. situation où doy de l'éducation ils sont dund les la moom la la la man dama jàpp ne Ablaye euh, nit su defee nag lu baax dama koy man maa ngi ci système bi maa ci ciy évolué depuis vraiment maa ngi sama trente trente cinquième année en defee nag ci biir daal xam naa ci tuuti te gis naa ne vraiment gouvernement def na ay efforts yu extraordinaire jàmbaar la mm-hmm. ak surtout bi PDF demee ba paquet ñëw mm-hmm. euh, def nañ alal ju bëri jëmale ko si qualité bi qualité de l'éducation def nañ alal ju bëri jëmale ko si gouvernance bi euh, def nañ alal ju bëri jëmale ko si communauté scolaire de façon générale mm-hmm. donc ay ay jéego yu bari am na mm-hmm. mais dafa am lu ñu fàtte si sama xalaat mooy dañoo fàtte ñii jàngale ñi yore système bi téye ko ci seen loxo. ñuy jàngalekat yi mooy jàngalekat yi alors mooy ñëw ci inspecteur mm-hmm. man man jàngalekat yi man sama combat de tous les jours mooy jàngale. dama ñëw daal xam ni ci nekk da ngay jël sa doom. nga xam ne moom moom moom nga gën a bëgg ci àddina nga dégg ko nit ne ko na baax waaw nga ni moom mi koy moom mi moom mi na ne na la ko euh, defal nit ku baax moom daal voilà ah, moom moom météo dara moom daal météo dara c'est pas normal dafa am injustice bu jàngalekat yi di dund inspecteur yi di ko dund te injustice boobu ñuy dund mooy dafay déteindre seen liggéey tey jii man dama jàpp ne moyens yi am na lépp am na littérature bi jëm ci éducation yëpp am na mais li des mooy motivation de l'enseignant donc il faut ñu motiver leen da ngay gis un instituteur boo xam ne bii moom beneen technicien ci beneen secteur ñoo yam même hiérarchie wala sama mu dàq ko jàng kooku mën ko fay juróom yoon nga gis un instituteur de l'éducation nga xam ni fonctionnaire de la hiérarchie A1 la mais naataangoom yi koy may dañ ko fay ñetti yoon ba ñeent. inspecteur de policier. non inspecteur te kooku sax du suñ morom. waaw dèjà waxuma la nag commissaire de police. waaw kooku la ñuy kooku suñu naataango. te kooku bokk ñoom moom. bokk la ñoom gars yi ne dañuy ñaawal nañu boo déggee ci car rapide inspecteur rek bul werante. xamal bi daanaka inspecteur de l'éducation. loolu nag. nguur moo ko njëkk a bañ nguur moo war a njëkk a protéger ses cadres. Mm-hmm. moo war a njëkk a protéger ses fonctionnaires. donc ñun boo xam ni mm-hmm. baaxul.

waaw kooku dinaa ci sawar aussi Ablaye vraiment tey sama xol dafa dama xaw a am benn surprise quand parce que su bi may toog sama kër toog sama salon di leen seetaan dama foogal ni wuuf macha allah local bi ngeen nekk. et cetera mais bi ma ñëwee gis ne ah. yéen vous êtes en train de vous construire. absolument yéen ci tànku defar. Hmm. te man lii laa gëm. nga dugg ci mbir.

jàpp naa ni li ma wax ni sénégalais yu bëri ñu ngi koy donc nous sommes prêts nous serons derrière vous mhm. et que chaque fois bu ngeen ñu invité dinañ sawar loolu pour ñëw très bien dinañ sawar loolu pour très bien pour des raisons politiques donc il faut ñu appel par parti militant waaw par rapport à mes militants ah, mais par rapport à aux autres. mais bien sûr waaw samay militants moom bon li ma leen di gën a jàpp rek. Mm-hmm. di nuyu ñëpp au passage mais surtout ñi nga xam ne adhéré ko politique soo ko deful man du ma mm-hmm. mais commencé naa ci yëngatu pour sama réew. Mm-hmm. soo ko deful ku xamul dara man mandat lay jógee fële koo xam ne ki yàqkat la ñoo def ko toog jiite la. moo bu ñu bañ politique. nañ ci dugg bu ñu nekk nag politiciens yi ñu xamoon nañuy wax dëgg mhm. te ñëw donc maa ngi ñaan en tout cas képp koo xam ne bëgg nga defar Sénégal képp koo xam ne kii defar jikko yu ñor na la mhm. ñëwal seet si ñu ñu ànd ak yow ñeneen dugg bi suñu bunt mhm. ñu liggéey pour changer suñu réew amuñu nag fixation ne dañuy nekk président non non dañuy liggéey pour suñu réew kay nekk président ëllëg yàlla dogal dëgg la dëgg la yàlla ko xam kon tey jii wax euh, suñu mbokk téléspectateurs yi Euh, suñu mbokk internet yi tey ñu amoon plaisir bu mag vraiment ah, mbégte bu immense recevoir suñu xarit euh, koo xam ni mën naa ko wax léegi bu ñu ko xamee tey bi yàgg na euh, bokk moom aussi di liggéey teewu ñu fi en tant que militant de la République des valeurs seet suñu fii ci République Prestige vraiment waxtaan fi waxtaan bu am solo ñu leen di jox rendez-vous ci beneen édition bu plateau Prestige incha allah merci